asalaamaaleykum sama gaañu ñu ngi leen di gérer bu baax a baax fii ci réew mi sport ñu ñëw ci xibaar yu mujj gi jii ci samedi bi di yem ak le 3 août 2024 bu fekkee ne abonné go ñoo ngi sàkku nga abonné partagé lii di vidéo bi activé cloche de notification bi pour que vidéo ñu dugal nga bokk si ñu koy njëkk a gis fii nga xam ne moom mooy ci réew mi sport xibaar yi ñu ci ànd ak Serigne Cheikh Lamine Mbacke di seet Serigne Sidy Mokhtar Mbacke boo xoolee ci senegal mën ngaa gis fukki nit ak juróom wala ñatt téeméeri nit ak nangam ñoo xam ne ñëpp ñu ngi toog ku ne di wax néew kàttan man néew kàttan ñaari cabinet laa ci yor ñu bari nag dañ may woo ne ma yow la sëñ Cheikh Al Amine Mbacke am yu ñuy leeral waaye fii laa ciy leeral àdduna bépp dégg néew kàttan ñaar laa ci yor bi ci njëkk mooy fas gi nga xam ne fasug néew kàttan la di fasug ndono amul kenn ku mos a ñëw ne Al Amine jox na ma fas gi te taqaliku ma néew kàttan li ma defar ci kër ëpp na lu mu néew néew mën na mën na junniy kër. ñoo xam ne fas gi moo tax kër ga am jàmm. la ma defar ci sëyit fas giyee tax. kon nag beneen bi bi ma ci yoraat mooy cabinet Xelcom Kattan. xel Xelcom Kattan xeetu attaaya la booy jëfandikoo ndax loolu li tax ñu sabab ko ñu ñu defar ko lakka ka sabab ki nga xam ne yàlla dogal na ne maanaam fonkut ay téere wala yu mel noonu. waaye bi ci gën a wér ba gën ci wér bi nga xam ne moom du ñëpp ci mën a jot. waaw du ñëpp mën a jot waaye mi ngi nii képp ko ci jot. néew kàttan da nga tàkkoog moom ak at yoo mën a am te dootu la dal ba faw man sëñ Cheikh Al Amin Mbacke képp maa koy joxe ku ne nag mën ngaa gis mu yoruk fas di wax waaye sëriñ Cheikh Al Amin jox na ma fas tàqoo maak néew kàttan ba ëtt day tukki doo ko dégg fas gi daal jàpp nga daal moo gën ci néew kàttan ni ki day takk rek di sëy at yoo mën a am moo xam sa awara day nooy di lax di dellu ngay gaaw a yegg santiroo sa bopp effet bi gàtt bu soobee yàlla boo ko takkee lu néew néew néew néew ñaari waxtu mën nga kaa sëy ñaari waxtu. Mm. mën nga kaa lum néew néew néew te mi nga aju ci yow nag. xibaar yi dañ koy commencé donc li nga xam ne moom mooy ca Amérique dem ci classico bi nga xamante si nii euh, donc waroon na am tey jii ci 23h bu jotee diggante FC Barcelone ak yi bii di Real Madrid match ba nag dañu kaa mujj dagg lakk waral moom mooy mauvais temps mauvais temps ci lan ndaxte foofu dafa xiin xiin boo xamante si nii dafa jégg dayo et xiin bi dafay ànd ak euh, benn milax boo xamante si nii baaxul par rapport ak li nga xamante si nii moom mooy euh, seen installation yi nga xam def nañ ko ci côté électrique. que maanaam ci côté courant bi ak yooyu nekk na loo xamante si ni lu risque la ci côté li nga xam mooy joueurs loolu moo tax donc arbitre bi daal di décider ci ndigalu li nga xam mooy autorité yi nekk foofu daal di dagg li nga xam mooy match bi 30 minutes nag la gaañu joxe woon daana buñ ko toogee dinañ dugg si waat mais boobu ba ëpp na 30 minutes kon mënees naa jàpp ne fi mu euh, diggante Barcelone ak ki nga xam ne mooy Real Madrid match sax affiche bii nii ci stade bi lañ ko def mooy que euh, ba tey jii nii ci région bi nga xam ne fa la ñu footballé maanaam daal ci bërëb ba nekk di football gis nañu ne Moufestan ba ma nga fa ba tey maanaam daal euh, melax bi nga xamante si nii dafa ànd ak li nga xam ne moom mooy euh, densité maa nga fa ba tey léegi nag match bi mën na reprendre à tout moment donc. mën na ñëwaat fi ñu toll nii gars yi waxaguñ ba xam dañ koy war wala duñ ko annulé mais xam leen li wër ba wër y a des possibilités pour que ñu li nga xam ne moom mooy match bi sinon mën nañoo toog benn waxtu ñaar bi jàpp ba ñetti waxtu ñu muy doog di reprendre moom classico bi mais xam leen daal actuellement dañ ko daggandi ba ci kanam danuy wax ci mercato bi donc ki nga xam ne moom la ñuy tuddee Arsenal gaañi mu ngi continuer di chercher ab lii di attaquant ba dernier jour mercato loolu nag Arsenal da koy liggéey en secret maanaam daal bëggut a nekk fii di liggéey gars yi yëpp xam ne mi ngi liggéey publiquement mi ngi bàyyi xel nag benn attaquant. boo xamante si ni vraiment mooy point ñëw pour ànd ak kii di Martinelli ak kii di Bukayo Saka Gyökeres donc di attaquant bi nekk fële ca Sporting bu Portugal ak kii di Alexandre Isak donc ñaar ñii ñëpp Arsenal mi ngi leen di surveiller bu baax a baax bu fekkee ne donc dem nañ ba si dernier jour mercato yi équipe bi nga xam ne moom la ñuy tuddee Arsenal pare na pour def benn attaque moo xam ci Gyökeres wala boog kii di Isak xëy na récupérer Gyökeres et puis coup plus facile que xam ne moom mooy Arsenal aussi ñu ngi bàyyi xel kii di João Pedro dafa xaw a wuute nag ñaar yi parce que actuellement nii euh, bu fekkee ne xees euh, ak ki nga xam ne moom la ñuy tuddee Isaac daanaka ñooñu même bu Edin Ketia toogee Arsenal bëgg na ci recruter kenn mais kii di João Pedro moom dafa xaw a dépendre si dossier wu kii di Edin Ketia mi nga xam ne ña nga koy dégg fële ci côté Olympique de Marseille kon bu fekkee ne Edin kecca dem na Marseille donte nag fi ñu toll nii lu xaw a improbable la euh, mën nañoo gis ki nga xam ne moom mooy Arsenal dugg ci kii di João Pedro. leer na nañ ñi tey jii ci samedi gi ki nga xam ne moom la ñuy tuddee Sommerville nga xam ne ay club yu bëree bëri ñu ngi ko doon bàyyi xel comme Liverpool comme Stade Rennais Lazio de Rome ak yeneen i ngi ko doon bàyyi xel moom kii di Sommerville donc officiellement euh, signé na ci club boobu di West Ham United donc moom di ki nga xam ne moom la ñuy tuddee Sommerville équipe bi nga xam ne mooy West Ham euh, dina ci dépenser lu toll ci 35 millions donc daal dinañ signé benn contrat bu toll si juróomi at mu doon recrue boo xam ne recrue bu am niveau la. toujours donc ci côté Angleterre Newcastle United ki nga xam ne moom la ñu tuddee Bruno Guimaraes moom la ñu tabb def ko léegi capitaine bu équipe boobu nga xam ne moom mooy euh, moom nee kontaan na bu baax a baax te pare na pour daal di tàmbaliwaat beneen saison ak boobu noonu di Newcastle United rêve la woon ci moom mu joué ci Newcastle United surtout ci championnat bi di championnat bu Angleterre mais ku ne ko woon bis dina dox ba yow nga doon capitaine bu club Newcastle United du ko gëm donc doon loolu fierté la ciy am moom ki nga xam ne moom la ñuy tuddee kii di Bruno Guimaraes toujours donc ci côté mercato bi ki nga xam ne moom lañuy ñuy tuddee waa Liverpool bëgg nañ kii di Marc Guéhi bëgg nañ ko mais xam nañu ne dina xaw a jafe pour que ñu égaler ak li Newcastle United pare pour def ko Newcastle United pare na pour dépasser jour bi plus de 60 millions loolu nag nekkut loo xamante ne Liverpool lu mën la actuellement moo tax bëggut a dugg ci yooyu kan xam leen ne ki nga xam ne moom mooy Marc Guéhi donc mi United parce que sax am na yenn xibaar yu xam ne ne moom ci boppam mi ngi commencé di ubbi buntum pour mën a dem fële ca Newcastle United équipe bi nga xam ne moom mooy Liverpool comme ni ñu leen ko fi annoncé woon démb la su ma juumul concernant le de kii di Anthony Gordon donc ñu ngi continuer di def li nga xam ne moom moo leen war ndaxte dans les prochains jours donc fii ak ay bis dinañ daal euh, daal di waxtaan ak ki nga xam ne moom mooy Newcastle United concernant le dossier de Anthony Gordon pour Anthony Gordon moom am na bëgg-bëgg pour rejoindre Liverpool mais nag benn accord ak équipe nga xam mooy Liverpool maanaam daal moom. Euh, ubbi na ay buntam bu fekkee ne di wax pour pare na pour sérieux ci négociation bi moom vraiment pare na pour saisir opportunité bi dem concurrence ak ki nga xam ne moom mooy Luis Diaz nga xam ne moom mooy ailier gauche bu équipe boobu nga xam ne moom mooy Liverpool kon nañ bàyyi xel Liverpool. dañuy continuer toujours euh, dem ca Angleterre ba tey foofu ci London euh, fekk fa ki nga xam ne moom mooy Cuenca comme ni ñu ko fa annoncé woon keroog défenseur espagnol bi nekkoon fële ca Villarreal donc leer na naa ñi léegi joueur bu équipe bii di. Fulham la xam ngeen Adrabio di euh, donc défenseur anglais bi signé na fële ca Chelsea gratuitement donc kii di Cuenca di euh, défenseur bi nekkoon fële nga xam ne moom mooy ca Villarreal signé ne foofu pour benn somb toll ci 7 million ak bonus bi lépp lépp mën naa dem ba 8 million moom nag signé na juróomi atu contrat moom kii di Cuenca. Barcelone nag transfert bi dina ci am as tuut un million quatre cent mille donc la ci am waaye équipe bi di FC Barcelone xam ngeen ne moom moo formé xale boobu di Cuenca jóge Villarreal pour dem fële ca Fulham équipe bi di FC Barcelone nag ba mu koy jox équipe boobu di Villarreal daf leen a waxoon ne leen am nañ ci joueur bi lu ci vingt pour cent. vingt pour cent de pourcentage donc vingt pour cent yooyu daanaka boo koy méngalee li soo ko génnee ci sept millions yi daanaka dina la mën a jox un million deux cent trois cent jàpp ba un million quatre cent yoo xam ne Barcelone récupéré na ko tey jii nii ci samedi bi ci transféré doomu espagnol boobu. le dossier de ki nga xamante si nii moom la ñuy tuddee Calvin Phillips donc dara changé wu ci mooy que lan bi di Manchester City compte ci moom malgré que donc titulaire na ci quelques matchs yu euh, bi moom ki nga xam ne mooy Calvin euh, Calvin actuellement donc Galatasaray contacté na ko Salzbourg aussi mi bàyyi xel RB Leipzig mi bàyyi xel AS Rome aussi mi bàyyi xel actuellement nag City bu amee ko gënal mooy day tàqale ko ak moom définitivement a duggaat ci dama la koy ablaak di jaay joueur bi directement bañ a xaarandi dara kon équipe yooyu ñu ngi koy bàyyi xel bu baax a baax. Manuel Ugarte mi ngi continuer donc di xaar équipe bi Manchester United waaye xam ngeen accord am na diggante Manchester United ak milieu de terrain Uruguay bi nga xam ne moom la ñuy tuddee Manuel Ugarte lan moo des diggante ki nga xam ne moom mooy Paris ak ki nga xam ne moom la ñuy tuddee Manchester United mais Paris ak Manchester United daanaka négociation yoo xam ne moom lay lijjanti actuellement pour xam ñan la war a ñan la war a bàyyi mais xam leen daal Manuel Ugarte ngi continuer di wax ne daal mu ngi toog

ñëwaat day quitté ci club boobu en tout cas day wane attractif bi nga xam ne gis nañ ko ci club bu mag boobu di Manchester United waaye club bu mag moom day reste doon club bu mag malgré euh, parfois nga am ay jafe-jafe mais imaginez Manchester United qualifié wut Ligue des Champions mais xoolal les grands joueurs les joueurs ay joueurs yoo xam ne ay joueurs importants lañ donc di dem ci li nga xam ne moom mooy différentes équipes yoo xamante si nii ay équipes yu demul Ligue des lañ xoolal ko si yeneen marché malgré ci dalit masrawi man i kaxpe Sufyaan Amar Baate ji soi sirkisi ñëpp ku ci nekk donc bëgg a ñëw ci yow dañuy wax ci ki nga xam ne moom la ñuy tuddee Cassius Tou donc di li nga xam mooy milieu de terrain bu équipe bi nga xam ne mooy Napoli boo leen xoolee démb casoon nañ ko wax leen ne ki nga xam ne moom mooy Gilles Mour di di di milieu de terrain bi nekk fële ca Napoli bi nekk fële ca euh, Brighton euh, pour que mu jóge Brighton pour mën a signé foofu faaw ko équipe bi di Napoli jaay benn milieu de terrain Cassius mi nag actuellement am na yenn ci ay club turki yu koy bàyyi xel am na club français yu koy bàyyi xel mais Napoli daal euh, pare na pour tàqali ko ak milieu de terrain bi dañuy wax toujours foofu ci biir Italie ki nga xam ne moom lañ tuddee Thiago Motta leeral na ko naan ñi tey jii nee na bépp joueur boo xamante si ni gisoo sa bopp ci joueur yi nga xam ne convoqué naa leen ci li nga xam ne moom mooy euh, lii di match amical yi xamal ne li yow bokkoo ci projet bi loolu la wax nee na euh, ba ma leen koy wax yàgg na loolu ku ci ne ku ci nekk na liggéey ak sa agent jéem a trouver solution jóge ci équipe bi rapidement ñooñu nag ba fii kii di ko Federico Chiesa ma ngi ci biir kon euh, man nañoo wax ne muy Federico Chiesa muy Thiago Diallo yooyu yëpp yëpp ay joueurs lañ yoo xam ne bokkuñu ci liste bi nga xam ne kii di Thiago Motta convoqué na leen pour match amicaux yi te caagumataa taxaw na publiquement nee na képp bépp joueur bu gisul sa bopp ci list bi xamal ne yow mii Euh, euh, bokk ko ci projet bi nga xam ne moom la ñu jëmmal ki nga xamante si ni moom la ñuy tuddee Victor Osimhen ba tey moom it bu woowuñu ko ci match yi nga xam ne Napoli doon na ko amal su mu jumul tey digganteem ak Girona ki nga xam ne moom la ñuy tuddee euh, Victor Osimhen parce que tamit Napoli bëggul jël benn benn risque joué loo ko mën na blessé moom ba tey ji nii mi ngi koy lié ak Chelsea ak Paris Saint-Germain xam ngeen ne fi ñu toll nii négociation yu positif amoon na diggante Napoli ak Chelsea mais nag joueur bi bu leen fàttali ne amagul benn accord ak bi di Chelsea équipe de amal accord moom mooy Paris Saint-Germain kon ki nga xamante si nii moom la ñuy tuddee euh, Victor Osimhen moom moo ki nga xamante ne moom mooy waa euh, Napoli daal di dugg ci dossier kii di Lukaku lukaaku nag fi ñu toll nii mi ngi déglu ay différentes offres yi dikk ci noppam mais ku ñëw ku nekk rek daanaka day bañ moom ki nga xam ne moom mooy Lukaku parce que moom nee na fi mu bëgg a moom mooy fële ca euh, Napoli fekk kii di Antonio Conte en tout cas daal xam leen ne ki xam ne moom mooy Lukaku mi ngi toog di xaarandi di ñaan kii di Victor Osimhen quitté ci club boobu parce que Victor Osimhen quitté fa mooy lukaaku day dem foofu ci Napoli. ki nga xamante si ni moom mooy Arsenal nee nañ trente jàpp trente cinq millions lañ soxla xam ngeen ne dernière proposition bi démb dikkoon nañ ci toll ci vingt sept millions. ci ki nga xam ne moom mooy indi bañ ko Arsenal kon nee na moom bëgg na fanweer jàpp fanweer million ak juróom daanaka kon li dox seen diggante bëriwul daanaka ay 7 euh, million yooyu mooy dox seen euh, diggante jàpp 8 million moom bii di Edin Ketia nag xëy na marché du neexala ci équipe bi Arsenal bu fekkee ne Youssoupha Moukoko xas na ba signé waaye. waaye ni suma ko signé na marché donc du rayete boppam ci kii di Edin Ketia loolu moom c'est sûr leneen li nga xam ne aussi gars yi am na changement ci diggante bi diggante donc ci 24 heures bi après bi Atlético de Madrid xawee am tiitaange xam nga wax nañ leen ne Atlético de Madrid jox na ultimatum ki nga xam ne moom mooy jour bi eh, di Galactico ne ko décider eh, fii ak dimanche. sinon dañuy génn ci dossier bi donc tey jii nii négociation yu positif am na donc ki nga xam ne moom mooy Aliou Dicko amaat na yaakaar ne gannaaw Gala Gueye mi day daal di accepté pour dëkk ci li nga xam ne moom mooy seen équipe bi équipe bii di nag moom ñu ngi toog di xaarandi 40 millions gaañu fii la xibaar yi yem ba suba ak jàmm incha allahu rabbi